mesure yi nga xam ne ni ki doon présider séance bi muy euh, la députée Aïda Sow Diawara bu ma juumul convoqué la gendarmerie ci biir hémicycle bi ay images yoo xam ne ni nee nañ gëj nañ ko gis depuis 1962 jamonoy Mamadou Dia est-ce que tamit réaction boobu ci présidente séance bi jaadu na nga gis. mais c'est la très bonne réaction vraiment je la félicite quand il y a des bandits devant vous mais il faut appeler la gendarmerie pour que ah, ah, ah, pour protéger xeex bi fa amoon démb mais mën na am ay blessé ay maga fa nekk soixante-dix-huit ans ay voyous yu gone yu góor ay bandi ñëw taxaw di dóor ak a ci sa kanam mais daf ko yéex a def. daf ko waroon teel a def gendarmerie ñëw mettre mettre l'ordre parce que il faut que l' continue ku boycotté sa affaire la nga dem sa yoon institution bi day continuer vote bi day continuer pouvoir bu ñu boycotté woon vote bi day continuer su opposition boycotté vote bi day continuer parce que c' est l' de la république parce que parce que mooy deuxième mooy deuxième institution bi ëpp solo si Sénégal kooku nit benn nit bu kontaanul gën dem yoonam wala ñett wala fukk wala ñëpp bu ñu génnoon dutee institution bi continuer c' est aussi na koo def parce que bu ko deful woon démb débat yi fi lay nekk ba cinq heures du saagante yi xeex yi mais démb ay demb démb démb mais demb lañ doon def arène nationale rek lañ fa indi woon arène nationale il faut moom foog il maanaam il police toujours day nekk ci arène bi démb ay mbër fa nekkoon. Ah, ñu woote woon rupture aussi ci quatorzième législature bi ñu bëri jàppoon ne daal yaakaar juddu na kon njuumte am na ci sa gis-gis. la dimension personnelle est régulière dans les certaines stations. moo tax bu naan diw day nekk président diw dafa présidentiel mel ne non tey leen xoolal leen ko bu baax a baax parce que dimension personnelle bi c'est très important mais dimension personnelle yi moo c'est ça qui fait défaut démb démb lañ fa wane ñoom ñi ña fa nekkoon démb xam nga ne ils sont pires que treizième législature ils sont pires que toutes les législatures connues ici au Sénégal donc bu changé wul vraiment vraiment vraiment euh, amatuma sax baat bu ma wax démb démb j'étais pas fier d'être sénégalais aussi euh, mu am benn surprise au persoir avec euh, le président élu muy amadu maam Diop ñu doon xaar ay Mimi Touré Aminata Touré Amadou Ba euh, Abdoulaye Diouf Sarr mais Macky Sall fël feneen daal di tànn amadu maam Diop comme candidat moom lañu ñu mujj fal élection boobu noo ko gisee. sañ na ko sañ na ko il a pouvoir mais nag il a trahi il pouvoir nag parce que mooy mooy président Benno Bokk Yaakaar moom moo xam lu tax. mais il a trahi parce que gis soxna Mimi Touré li mu daj ci campagne bi ak ni mu doon marqué marquage au culotte ci opposition bi buy waree sa conférence de presse 17 moom 18h mu waree conférence ak ni mu jàmbaare woon face au truc ñi mu amoon en face moom rek moo am moo ko amoon pour mener euh, pour mener contre attaque bi ci war donc ak lim ci daj yëpp soxna ñu jaayoon ko en tant que soxna assemblée premier am paysan bu jigéen tout ça c'était des ñu avancé woon baax si dernier moment ñu jël fal keneen c'est une c'est une c'est une trahison que Macky Sall nous a habitué d'ailleurs waaw moom Macky Sall moom très pour une question de l'heure et du moment mais pour moom lu baax la ci politique la bokk donc Macky Sall machiavélique il a fait son habitude trahir ah quand tu as trahi tout un peuple mais trahir Mimi Touré y a pas donc il a trahi point très se mon avis simplement il a trahi léegi nag mu des avenir Mimi Touré euh, Fulaay Jaay Dakar ban ban ban courage la war am jëloo ko fa amee pour faire face parce que Macky Sall c'est fini Macky c'est fini mu naqadi ko mu neex c'est fini il n'a qu'à prendre ses bagages tàggoog ñun ci jàmm parce que moo gën ci moom parce que comportement yii yëpp abusif yi yëpp li ko waral mooy insisté wu Macky Sall bëgg fee deñ à vie loolu moo tax finalement rébellion bi di nekk toute sorte dans le parlement nekk boobu di nekk fu nekk je tiens quelque part Macky Sall responsable voilà. mais aussi peut-être Mimi Touré ñu ngi jëm ci euh, beneen gouvernement ñu ngi jëm ci peut-être beneen premier ministre bi nga xam ne ni dañ koy nommer est-ce que la réaction de Mimi Touré aussi est-ce que du yàqamti peut-être am na lu mu ko dencaloon am na lu mu ko naqaloon ci gouvernement bi benn ministère bu xaw a yaatu. mais y manque de concertation kon parce que nit ki boo koy denc dara dëng. waaw mais même mën na ko ne yow toogal xaar dinaa def nangam ki ngay waxal xam communication day am ci cib sëy day am cib ànd mënu ci ñàkk parce que bu communication amul kenn du xam sama morom fu mu jëm ci ñu war a ànd il faut ñu xam ban direction la ñuy jëm ensemble soxna mi tudde kay waroon na ko wax ne ko kon toogal ma def la nangam buñ juboo ci loolu y a pas de problème mais donc bu ñu jubóowut kii liggéey liggéey bi te wax dëgg yàlla kenn xam ko miinu ma ko et na ñu naan mbokkum Mariam Faye Sall kañ la ñuy tàggale ko loolu mbokkum Mariam Faye Sall laag euh, tudde na Mansour Faye doom xam nga Macky Sall fi indi yooyu nag dëgg-dëgg Abdou Diouf jaar na fi rakkam nekkoon fi euh, Mansour Mansour nag Maguette Diouf ñu bokk ndey ak baay une fois qu'il a problème avec Ousmane Tanor Dieng bu jotewut ak euh, Abdou Diouf benn bokk da koo Abdou Diouf da koo dàq c'était une très bonne leçon voilà un républicain voilà un mais yow sa sa rakk fii gère tout à sa rakk sa rakki jabar ñu naan sax sa rakki jabar celui qui gère tout tudde na sa jabar doom ci dans une république xam nga Macky Sall yi fi indi moo tax rébellion yi aussi mel nii parce que am na comportement booy am nit façon toute sorte la ñuy bañee la ñuy lànke donc yooyu daaw ma fi dégg vraiment mais nag une fois encore et une fois encore que Macky Sall parte en paix c'est fini la la la la Saddam Hussein waxoon xarinta kul shay mais jeex na Macky Sall il n'a go c'est tout. Ah, ñu ngi théoriser en tout cas ñenn ci ay kaam ñu ngi théoriser ne am na droit def troisième mandat troisième candidature au moins. non non non Macky Sall ne dit pas ça dans son discours à Touba Macky Sall commence d'évoquer son après. gis ne da doon tàggoo. mi ngi tàggale ko fi mu ne nii mi ngi commencé wax son après wax na ko Jeune Afrique du ma yàq démocratie parce que xam na ne mënu ko donc te euh, nag. Euh, waxuma ay xam nga pourquoi nit ñi bëgg a seen bopp ci ay lettres mooy dane nul deuxième mandat cinquante trois ans Macky Sall li wax ci olof daa dafa leerul l'esprit lii laa bëgg def lii laa proposé pour ñu voté ko li tax ma def ko lii la l'esprit est clair pourquoi lettre beeg noo kon fii ceci loolu hypocrite dafa ko mën a paase dafa ko mën a paase loolu koy ku lay déglu koy wax doo ruus après su Macky Sall ne def troisième mandat doo am gàcce Euh, Touba waaw ñu jëm ci Touba euh, ñu jëm ci màggal ginnaaw suba incha allah donc ñu doon wax léegi muy politiciens yi ñu ngi euh, rang di défilé ci kër xalifa beek yi demee noonu màggal gi yan kàddu nga ci mën a sànni ci luñu. waaw maa ngi sant yàlla maa ngi sant Serigne Touba sama waaja moo nami moo cher su ma waaja su ko xeet lu ma yëg ñoo ngi ci comme je suis depuis deux mois maa ngi Touba gis nga. préparation yi yaakaar naa lépp mat na yàlla yóbbuñ ci jàmm ñoo ngi ci alxuraan ji fi ne mooy préalable yi ci la ñuy njëkkee avant ñuy àgg ci bernde yi mm, ñu ngi ci woon avant que si bernde yi nag commencé na fi mu ne ñu jëm màggal ak jàmm rek leen gërëm yéen tamit nga xam ne lu fi waaye fu nekk ci àdduna rek mel ne na fekk nga ko ndax ndax jàmbaar waay seen bravoure de montrer la réalité la la truc information c'est euh, vraiment foofu lañ toll daal ñu gërëm leen jaajëfal leen. jërëjëf jërëjëf kon sëñ bi may fàttali ne ñu ngi doon dalal Serigne Modou sa Dieng di jotaay bi di leen gërëm yéen ñu ngi doon teewlu di leen dig daje beneen yoon ci beneen jotaay jërë ngeen jëf